moom lañ dénkoon eh, eh, wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am eh, wax bi daal wax waxu lislaam wax du ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi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 junni at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ah du loolu la mu seesu la noppi waxuma la nag li nga xam ne moom mu ngi ci téere yi lépp ngi ci téere yi te it ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo wutu yonent yi te sëriñ bi kenn jiitu ko ca wax musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen borom moom mën leen jëmale seen borom bind na it ba fi loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag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 jullit bu ko def ak sa borom taalib bi sëñ Tuubaa bu ko def yaag ya ya ya ba tey yaag sa borom ndax sëriñ bi mosut a juyoo ak boromam réeruwul ak boromam la borom bëgg rek la borom digle rek moom la digle la borom bëgg moom la digle la borom tere moom la tere.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 jeexalu bundam li mu fi nekk ci loolu rek la nekk la fi nekkee kon nag loolu dëgg la faaw nu tàmbali cosaan cosaan li waaye li ci am solo moo di sëñ Béthio dëgg la ci lam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw kon waxoon naa ko njaboot gi muy Sëriñ Saaliw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 ginnaaw nun ginnaaw jees lisan amatul jees lisan bu jees yi lisan amatul am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu fa wala ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na yàlla soppi na jamonoom loolu nun nun loolu loolu nguur gi rek ñoo ñaam boobu sañ-sañ te ñoom bokkuñu ak ak jublu ak ak doxin ñoom doxin adduna la ñuy doxal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 te yàquñu dara ci lim lim nekkoon suñu borom ba ci ba ba ak si kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam jóg woo nit ñi bëgg leen gindi jëme nañ seen borom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 te yàqu gënal la ah loolu rek la yàqu moom ku ko def yaa ko yàqu daa neex daa neex waaye ngi fi hmm? ah ah ku yà ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu yak yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ngay dem di barsàq ba ba ba bés ba njiba ah, loolu loolu rek la bu baax